saraax la nuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat explosif ba diggante rëg-rëg ak guy gi guy gi mi fi génn démb dànkaafu rëg-rëg xamal ko ne ko boo jëlee sama combat di nga ko réccu boo jëlee sama combat da nga daj lu metti boo jëlee sama combat na ko na def yëfi mbër dànkaafu adversaire am xamal boo jëlee sama avance di nga ko réccu s'il prend mon avance il va tomber loolee la rëg-rëg xamle rëg-rëg ana lan nga wax mu ne guy gi bu dof dofloo ba jël sama avance mooy daanu na ci suuf guy gi bu ñu ko jayee ba mu jël sama avance dootu ko nettaleeti danaa ko teg lu metti ba mu xam ne teg naa ko lu metti man daal li ma lay ñaan guy mooy jëlal avance bi wax ju bari ji yépp matu ko jëlal avance bi rek nga consommé balaa ma cee wax wax ju bari damay leer na jël nga avance bi rax ca dolli moom rek rek ne guy gi bu dee daa gëm boppam bu dee gaynde gi ñuy wax ci moom dëgg la bu dee mën na bëre te wóolu na ay mbokkam rek na jël avance bi bu boobaa dana xam ne seq na ko mbër bi le combat diggante rek rek ak koy dox structure bu bees ba ñu taxawal ñoom waa GFM mooy Sénégal Entertainment Group maa aussi see bopp ba finaliser nag rek waxtaan nañu rek rek ba jubóog moom ba signé ak moom ka ca des mooy le roi di sempi guy gi waa kër tey tey tey combat rek rek guy taxaw te ka koy taxawal mooy Sénégal Entertainment Group beneen combat ba ñu bëgg ñoom waa Sénégal Entertainment Group mooy diggante Sa Thiès ak Garga Mbossé maa aussi c'est may coordonnateur ba la mu xamle mooy bile combat ñu ngi ciy avancé bile combat ñu ngi ciy dox dox yu metti te njort nañ ne dana taxaw rax ca dool moom maa aussi ne saison bii di ñëw bëgg nañ cee tëgg ñetti journée VIP ñu ngi ci diggante guy gi ak rek rek ñu ngi ci diggante Sa Thiès ak Garga Mbossé am na yeneen i combat ñuy ñun waa GFM dañoo ñëw ngir jàpp ci làmb jëmale ko ci kanam ñun waa Sénégal Entertainment Group dañoo ñëw ngir jàppale làmb ka ñëw ngir jàppale Yaya Jules Baldé Junior mooy Matar Ba ministre des li ñenn ñi di wax médecin après la mort moom Matar Ba tànxam lu na ko déggu faalewu leen lijjantewu leen la mu bëgg a def te ko ci xelam mooy soutenir Yaya Jules Baldé Junior na mu leen bëgg a mooy di leen fayal lu yaa di leen commencé signé na combat digganteem ak Bombardier ba noppi dali ci wàllu meurtre wàlli sàcc di dox ci diggante tribunal ak këram ba tal ta préparé physiquement loolee moo waral journal ba ne lii moom une mauvaise entame la Eumeu ni mu tàmbalee préparation yi dalul xel ña seen xel dalagut ci situation lamb jeeg fa nu jëm mooy promoteurs yi nga xam ne combat bu fi taxaw ñoo la taxawal ñoom promoteurs yi la bëgg mooy ñu préparé saison bii ñu dëgmal seen cahier bëgg mooy ñu taxaw leen ba ñu continuer di doxal seeni combat jërë ngeen jëf mbokk lii moo nekkoon li gën a fës ci yéenekaay bi ñu leen jox dig daje ba ëllëg incha allah